nekk ci xutba yi di manipuler jeunes yi un ci sen fiche de poste yi seen tâche sen tâche yu leen Macky Sall centre pour di len jox sak tabaski korité ay 50 mille yi ngeen di encaisser non ak ay billet makka ak yooyu non mu len di defal ci souf man xamna na ak sen loi ya courant yu mu leen di exonéré yooyu non man xamna lan moy sen tâche sen fiche de poste xamna lan sen fiche de poste moy. ngeen nek ci jàkk di nax population yi di manipuler jeunesse bi pour que ñu tok di accepter injustice len non Macky Sall doon lolo première mission la une première mission une deuxième mission moy ngén di nopi ngén di tej sen bët ay crimes yo xamante Macky Sall mu ko don commettre contre le peuple sénégalais loolu moy sen deuxième mission une troisième mission créer ben lobby de vieux traîtres yo xamante ni saa yu ñu leen micro luñu wax lenn lu dul lu jëm ci sensu état bi waaw tourner le dos à la population sénégalaise mais des personnes avec cette mission là mais est-ce que ce sont des gens yo xamanteni ni réew mi daf len wara fay pour mission bu bonne bu ñuy defal askan lolu c'est une mission mais de traîtrise de trahison de haute trahison waaw de lesbotisme. je suis désolé de le dire parce que góor du nangu mission yoyu noonu nga koy def pour nga koy def contre contre ce réew Macky Sall li mo taxone mu doon len jox cinquante mille wax len wax len dem len gis président Bassirou Diomaye Faye ngeen définir ko sen fiche de poste parce que Macky Sall daanu leen fay gratuitement pour yéen nit ci ay dof lañ bo leen waxé rek da ngeen yaakaar ni ñun ay con lañ ñun ay dof lañ mais nous on n'est pas des fous nous sommes des gens yo xamanteni mais dañoo jang dañoo am xam-xam nous sommes des cadres et des professionnels dans notre métier donc waxo leen ak ay gune wala ay dof bu ñu waxé na du xalé yi xalé xalé pour yéen xalé xeet du kenn neku fi xalé ah xalé yi dañoo dem outil xam-xam seen bop yi dafa fess donc mëno leen dox ci maynu kenn yéen pay fu ñu wax ak yéen ah. on a beaucoup de respect pour les anciens nos vieux et mais vieux boo xamante ni da nga ni yow ñii di wax wala ñii di yeewu Sénégal yépp ay gune la ñu yaa ngi sa bopp kenn nekku fi xale Macky Sall daanu leen fay gratuitement nañ ko waxte dee Macky Sall dafa am lu leen doon sant ngeen ko doon def loolu moo tax mu doon leen fay te jomaay santu leen dar nekk leen ay imam ngeen teg ko ci charte yàlla nu mu ko waxee ngeen def seen liggéey kontu bi ngeen di rendre yalla ngeen koy rendre do len ko rendre president jomay fay mais yéen ñëpp kontu da ngeen do rendre contre Macky Sall ay imam So sat Macky Sall lu mu jox neex nañu ñaata imam ñoko Wah. fi doon wax bu 3e mandat sax and nañ ci ak mom waaw nañ ñu so sat ñaata imam ñoko Wah. fi wax publiquement ay nit dañ ci vidéo yi lu ñu ñamal neex nañu ana imam bobu ak ragal yalla donc ñun lu ñuy wax saagawuñu kenn mais dañoo bëgg lépp ñu teg ko ci yoon ci dëkk bi yéen a ngi commencé dénoncer seen bopp te affaire yi demagul fenn ah. vous êtes en train de vous dénoncer volontairement parce que li ngeen di ñëw fësal nii nit ñi xamuñu ko woon donc yéen vous étiez payé en fait pour trahir le peuple tey Rousseau leen ñëw di encaisser dafa bëgg encaisser l'argent de du sang du peuple sénégalais yaakaar ngeen ni Macky Sall bu demee sax de xaalisu deret boobu xaalisu crime yooyu noonu da ngeen ko continuer encaisser si Macky est criminel criminel ci il a des complices dans le crime contre l'humanité qu'il a organisé contre le peuple dans tous les segments de l'État dans toutes les couches de la société il a des traîtres et des collabos pour mu ak toroxal askanu Sénégal dañ il faut qu'on vous le dise il faut qu'il y ait des gens qui osent vous dire la vérité faut qu'il y ait des gens qui osent vous dire la vérité dans le respect ñu waxante dëgg ñu waxante dëgg dañoo toroxal réew mi jeunes yi xeexal seen bopp ñu wéet ci xeex bi kenn ci mag yooyu noonu nga xamante ni am nañu baat ci réew mi jàppale wuñu ci xeex Nan waw, Ahmed Khalifa Niass mën tok toog ci télé naan waa kilifa diine yi bu ñu newoon bu leen votel jomay kon du am lu mu am la ilaha illallah gàccee la ñu xam ne moom lañ fay la laa ilaha illallah gatché lañ fa naroon jëlé dé Père Ahmed Khalifa Niass xawma ma ku lay conseiller dé way n'est pas bon conseiller de ku lay manipuler la ak ku lay nax wallahi lazim bu fekkoon ben pa génnoon né bu len voter jomay pas bobu jour bobu lay am humiliation de sa vie mais fi la ay nit génn <laughs> jama jamono député bi élection municipale yi fii la ay kilifa génn né ñom ñoy imposer ben liste Touba wa Touba yëpp dem voter bulletin blanc sénégalais yépp gis ni kii nii dañu ko bëgg imposer Touba waaye amul benn légitimité fii lañ ko imposer Touba ne liste Macky Sall moom mooy jàll Touba forcé ci municipal yi waa Touba dem ba ci urne voter bulletin blanc illégitime won ko ni bay li élection la li du ñuy lu ñuy imposer doomu aadama yi loolu moo nekk premier test bu échoué dañu waxante dëgg nit ñi dofuñu ah, les gens ont une mémoire d'éléphant on se souvient de tout avec précision loolu mooy premier test bi dafa échoué jamono élection municipale ñu génn di naan waaw waa Touba léegi ñu dëkk Touba yi amatuñu worma kilifa gi day teg nit ñoom ñu génn def leneen voté leneen voté dañ ko dañ ko bëggoon essayer pour xool ndax élection présidentielle façon imposer yooyu dina jàll mais jeunesse Touba ñoo gën a yeewu ñëpp murid yi ñoo gën a yeewu ñëpp murid yi ñoo gën a nekk patriote ñëpp kenn mënu leen noon force pour ñu bañoon voté président Bassirou Diomaye Faye loolu mooy dëgg Ahmed Khalifa Niass bu di un manipulateur mais il manipule qui il essaie, de manipuler qui en fait c'est ça la question que les gens doivent lui poser il essaie de manipuler qui exercice bobu da ngeen ko waron un ngeen xol exercice bobu da ngeen ko waron tanté ngeen xol donc xam ngeen luy mbir mi leen nit ñi ñu on n'a plus le temps de certaines bêtises on nous avait habitués à les voir dans la gestion de l'État rio beaucoup de l'intérêt personnel est relégué au second plan l'intérêt personnel est relégué au second plan l'intérêt intérêt personnel a fa place que ce soit pour man que ce soit pour yomi que ce soit pour kenen ak l'intérêt personnel n'a pas sa place bu atteindre l'objectif commun l'objectif bu pour le bien-être de tous l'intérêt personnel n'a pas sa place d'accord nati ci affaire transparence war nañ a dimbali këru diine yi ci ban cadre lañ koy dafa transparent j'invite le président Bassirou Diomaye Faye ak le président Ousmane Sonko si jamais dañoo opté à verser quelque chose à des foyers dits religieux je, tous les mots ont leur sens dans mes propos des foyers dits religieux parce que il y a des foyers religieux dans ce pays mais il y a certains foyers qui sont dits religieux alors qu'en réalité on sait tout ce qui s'y passe donc bu vous da ngeen fas vous am à certains foyers religieux et à des foyers dits religieux il faut que vous ait dans la transparence Voilà, en fait euh, sama logiciel bi dama ko wara dama wara jënd benen souscription bo xamanteni day mëna a boole Facebook ak YouTube en même temps waaw euh, nu mu tuddee Matar Sow loolu moo tax quoi donc souscription bu ma yor ni abonnement bi ma yor <coughs> euh, Facebook rek laa ko mën a def wala YouTube kese moo tax ma def ko Facebook kese donc comme je vous dis nan la tuddati bu bëgg il faut que nous teg ko transparent déjà tout le peuple doit savoir qu'est-ce qui revient au foyer religieux dans ce qu'on a de commun qu'est-ce qu'on a de commun les fonds publics du xaalisu président Bassirou Diomaye Faye du xaalisu président Ousmane Sonko c'est des fonds publics c'est l'argent du contribuable sénégalais c'est l'argent des impôts

on ne veut pas continuer dans des mascarades dans de l'arbitraire il faut que les gens soient sérieux dans ce pays là il faut que les gens soient responsables dans ce pays il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent il faut que nit ñi xam lu ñu bëgg parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire donc waxtaan bi il faut que mu jaar ci yoon mu transparent ñu ne ci transparence kër diine bu nekk ci Sénégal sa événement bu jotee am na telle part boo xamante ni état voté na ko lii lañ lay jox te ci loolu lañuy yem duñ la jox loolu yëpp ba pare nga ñëw yokkal ñu ci yeneen charge da ngay def lii da ngay def lii da ngay def lii déedéet état c'est la neutralité l'état est laïque l'état sénégalais ce n'est pas un état islamique ce n'est pas un état religieux xawma lan c'est un état laïque donc, <clears throat> en termes de sécurité, l'État doit pouvoir protéger les personnes et les biens. Ça, je suis d'accord. C'est la mission régalienne de l'État. Par contre, l'État doit faire faire Mais pour l'an, l'État doit le faire. Pour l'an, est-ce que c'est l'État qui organise ces événements-là Si les gens sont incapables d'assumer les charges de leurs organisations, mais ils n'ont qu'à arrêter. Vous fekkee yow tu es incapable d'organiser les charges maanaam bu fekkee yow incapable d'assumer assumer dépenses yi nga xamante ni moom la sa xew bi war jot mais pour organiser événement bi parce que xaalis bi c'est pour les priorités c'est pour les besoins des Sénégalais donc il faut que les choses soient clairement dites il faut que ñu waxante dëgg dans ce pays-là les gens n'aiment pas la vérité ils aiment euh, le le masla ils aiment l'hypocrisie ils aiment tout sauf la vérité et c'est dans la vérité qu'on peut avancer ensemble. Donc, qui peut organiser événement état bi la soutenir pour sécurité des personnes état bi na la bu fekkee dafa am lu la jox la na même somme pour nyaseni na nek même somme pour tidiani, na nek même somme pour popongine ak ñëpp warul am disparité warul am disparité on on on interdit à ce régime là parce que on est des personnes qui ont maintenu tamit même bu dee fan la sacrifié wu nañu pour changement bi on interdit à ce régime di les bopom ci benn këru diine ci Sénégal normalement président Bassirou diomay fay ci doxalinam kenn warul xam ndax tidiane la kenn warul xam ndax mouride la kenn warul xam ndax catholique la c'est ça la laïcité c'est ça la laïcité ce n'est pas facile nak neutralité bobo. jë ko à 100 ce n'est pas facile beaucoup de de présidents ont échoué dans cette mission, mais c'est la tâche qui doit revenir à ce, à, à ce nouveau régime-là. Man mi di wax musulman là, mais vous ma nekkee président, je suis le président de toutes les confessions, confessions religieuses. Les chrétiens, musulmans leneen man maay ku ëmb ñëpp. chrétien bi dafa wara gis boppam ci ni may doxalee musulman bi wara gis boppam ci ni may doxalee ku gëmul wara gis boppam ci ni may doxalee même ñu gëmul yi dañoo am seen ak ci réew mi même ñu gëmul yi dañoo am seen àq ci réew mi bu dee ay garab lañu gëm wala ay bant lañ gëm wala naaj bi lañu gëm mais bu fekkee dañoo am seen cérémonie boo xamante ni pour loolu la tamit lu ñu jox Tuubaa dañ ko war a dem jox ñooñu tamit ñi nga xamante ni garab lañu gëm wala naaj bi lañu gëm wala biddéew bi lañu gëm li may wax ni dafa xóot de dof mënu koo comprendre moo tax te ma ñëw pour wax ak yéen dans de façon intelligente de façon responsable de façon réfléchie donc a une on n'est pas contre vous mais nous bëgg rek on est contre personne on aime tout le monde mais faruñu ak kenn qui ñeneen